ñu ngi ziar ñépp ñu tey ndokkeel ñëpp diital ci ziar beeg ñaan yi ci kii wuutu Ahmadul Xaddim te mat ko sëkk ci sëñ Muntaxaa ci Mbàkke walla yàlla yàggal ko fi yàggu kéemaan dafa yàgg lool ay naalam yépp yëgg te lu mu sémb lu ne ñu ànd kook moom te daje ci ngërëmul ahmadul xadim di sant yàlla lool julli ci yónnentam sallallahu alayhi wa waaye li may wax saa su ne ci lëg bu mose yàlloom na ko gërëme coy hmm, am na ñu ko saraan ne coy ba muy waaye lu mënti xew cooya fexe ba li mos aloon kon ki war a topp ci cant gi mooy busu baali sëñ afi busu yal na yàlla gën laa dëgëral nga uuf jaboot gi ba ca kanam a kanam sa yéene ci ñoom yàlla fekk la caag waaye ñu ne suñu yéene ci yow sëkk coleet bu baax ndax yaay cëslaayu mboole seen mbooloo yi nga xam ne ñooy yëngu ci barab bii jiite yomb na waaye jiite yóbboo ba yegg moom mberug loxo la te ni may wax jamono juune ne Bousso mun ngaa baax lool am yéene lool waaye sa laaw ñi nga bàyyi sa gannaaw am na nu buñ ñi moti mu sa yéene saa su ne day waaye ñi nga bàyyi gannaaw mat nañ sëkk sëkk dañuy wax ni euh, jumaa ji lépp ñépp la lu ne ku ne ngi waaye loola ak xam-xamme moo koy waral ndax sa laaw bu neexoon tënkee waaye tënkuñ kenn ku ñëw ku ne jàpp nañ ne hmm, ñoo ko risiq noonu yi tamit lañ koy doxe tàkkusaani ngoon ga ni fii ñu toll lu manqué ci ñun waaye mat ngeen sëkk yal ngeen dajeek ngërëmul Ahmadul Xaadim ndax ndàkk mépp loolu la te tax ngeen yaatal weesu xam ne Ahmadoo leen fi teg te ak bëggam mooy tax jaama yëngu fii kon la Cheikh Saliou yal na yàlla fay ñu ko doon wax ni du ma fekk lu yàlla yaatal ma kay xatal sàllaa loolu ngeen dunde kon na hmm, li may wax ci seen yaatal mooy mboole seen mbooloo yi nga xam ne ñoo yëngu ci bu tey jii rafetal gi muxaddimatul ma mënoon rekk am nu mu tëdde waaye boole ci boole seen mbooloo yi dajale ñu benn barab loolu wundut leneen lu dul nekk leen benn ndax seenu jublu benn la kon war ngeen mën a ànd liggéey te foññonte du ci am loole la yàlla dogal hmm. muxaddimatul xidma bu Louga xidmatul xaddiim bu tuuba ñu boole ñu fii mel ni yàgg nañoo waaw kan mel ni yàgg nañoo waaw yàgg nañoo kay waaye nii ñu dajalee dara wërulu ko lu dul ñu la taxoonte mi lépp lu ñu séem ma coleet te mel na ni noonu la demee doonte doonte doonte waaye mel na ni jéem nañ ci luñ man bu soo kon sant nañ bu baax a baax hmm, bu leen neexoon wax dëgg yàlla duñ ma wax loo ndax ñooy samay kilif waaye nee ñu ma wax wax ji nag lu gudd gàtt mënta weesu sant nañ bu baax a baax bu baax ma it wax dëgg yàlla réyal nañ ko nag yëpp xanaa tuuti kon du ko jar ndax damay wax ni lii ñuy jëfal ak mudu wërteef la ci ñun kenn dàkkuñ ci lenn leneen wërteef la ci ñun ngërëm ak yooyu déet déet suñu yoon nekku ci wërteef la ci ñun ñu koy def kon ku ku ku liggéeyal sàngam ba nuppi saraaw leen li lépp jaru ci waaye ndeysaan mm, li ñuy dàkk ñun ñëpp mooy ngërëm kon lii ñuy jéem jamono ju ne yàlla nañ ko saxal ba dañ cee ngërëm sant nañ bu baax sant nañ bu baax a baax sant sa gannaaw sant sa jëm te ñaan yàlla diig leen fi bi ngeen yéene yóbbu liggéey bi mu ma toleet te lépp nga fekk ko asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin nee na mu ngi sant yàlla bu baax julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam santaat Cheikhul Khadim di nuyu mbooloo mépp du ñuy ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaka yàlla yàlla fekk aw fanam dëbb ko kàttan lépp lu mu yéene liggéeyal sëñ bi mu def ko te ñu ànd kook moom ba see ngërmul sëriñ bi ne sëñ bi ne ñu mu ngi nuyu mbooleem ñu daje fii ñi même xam ñu jóge Touba Ngoy la ñi jóge Louga ñi jóge Ndakaaru ak fu waay mën a bàyyi ko ñëw bokk ci liggéey mu ngi lay nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mu ne ci turu boppam ak ak mbooloo mi nga xam ne moom la ànd liggéey bi te sañcee wax sañcee seet ndax ay seede rek lañu ne lu ñu ci wax nag mooy ne diir bu ñu ànd ak yéen ñun nee na xam nañ ñu ay murit lañ ndax ay gor ngeen la Cheikh Rafal waxoon maam Cheikh ne jébbalu yomb na nee na waaye gor moo koy doon lu metti metti nga xam ne yaa ko waxoon te loolu moo leen dal seen jëf wane na seen ngor ndax weddiwul la nga la ngeen waxoon sëñ bi ndax murit du ne tàng na du ne naaj na du ne mënuma ko du ne awuma ko acca rek la maam Thierno waxoon ba sëñ bi sëñcee dëkk bi ne dama bëggoon nga bittal ci ma suuf si nekkoon kaw fépp féeti suuf dañ na ko loolu mënta am maam Cerno ne ko ah kay ah, sëñ Tuubaa du si santaane lu ñu mënu te lu mu danaa ko def noona la ko def ne yéen itam ci loolu ngeen nekk lépp lu sëñ Tuubaa santaane rek dem ngeen bi ci deex tàkk dëbb ngi seen kattan def ci seen pëstéef def ci seen doole def ci seen alal man de seere naa ne. moom de seere na ne. ne waxul ne bu Sëñ Tuubaa nekkoon ci yéen jii. fa maam ya doon ndax di ko fekki. mba wala mu nekk gànnaar. fa maam yi doon ndox di ko fekki. di daj lu ne ci yoon bi. bu ne nekkoon foofa. bu nekkaatoon gabam. danañ ko fa fekki. ngir liggéeyal ko. kon nag la maam ña amoon. kon nag la maam ña amoon. xam nañ ne am ngeen ko ndax positif rek lañ fa yóbbu woon ne sëñ bi ab teen la boo xam ne benn baag rek lañ koy jukkee muy baagu positif loolu nee na loolu kenn magu ci kenn ñii ñu njëkk ñi ak ñu teew ñi nee na xam na ne positif ña mag ya yoroon ba bañ dajeeg sëriñ bi ba am la ñu am mu jaruñ mu jaral leen lam leen jaral ba am leen ñu am ñu yéen da am ngeen ko ndax xam nañ ne bu bu tey doon dimbit ngeen def na ngeen def rek ñu kon loolu sant yàlla rek a ci war ndax sëñ Tuubaa moom ku ko liggéeyal jaaxalu ko waaye téewut nag dafa tànn ay nit ñu koy liggéeyal mu gëm nañ mboole seen ñi fi nekk di ko liggéeyal. tànn nga la goo xam ne tànn sëñ bee tànn nga bokk moom moo tànn nga bokk ci ñi koy liggéeyal. ni nga xam ne ni nga xam ne noonu la Rasulullaay tànn ca biir gaa ñu baax ne mu doon xaaribam moom itam noonu la tànn ñi koy liggéeyal kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañu daje ngërëmu sëñ bi ku nekk am nga bëgg ku ne am na loo bàyyi gannaaw yal na ca suñu borom wuutu bari képp sëriñ Tuubaa la nga bàyyi ngir liggéey sëriñ Tuubaa yal na ci suñu borom wuutu na ne sëriñ Tuubaa laa doon liggéeyal ba ñu raw ma baat bu jomb la munta am te du am mukk ci àdduna képp ku liggéey ci suñu Tuubaa kay dañ lay ñee de di la dab te duñ la mën a dab ba at du sosoo ba léegi ay benn benn ñoo ñëw ci sëriñ bi bàyyi koo ci ay giir bàyyi koo ci ay famille ku bàyyi koo ci sëriñ bi ku ne boo delloo yaa gën say moroom di leen bindal ab téere du du la bindal ab téere du la jox saafara nga naan lam cay def ci sa jëmm la koy def buñ la gisee rek xam na yaa leen gën ñu jox leen seen bopp. loolu nag ba tey mi ngi si. bépp liggéey tu gëtub Sëriñ Tuubaa boo xam ne am na ànd naag pëtif du ñee kenn du ñee kenn mukk ci àdduna rawatina bu ëllëgee loolu mooy kàddu yi gàtt na waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp ñu yàgg ko fekke te rafetu fekkin sañ bi nangu yëngitu yëpp tamit te barkeel ko te wuunu wuutuñ ci aaju yëpp te fajal ñu aajo yëpp muy aajo wéridi muy aajoy poos muy aajo lu mu mënti doon jubal njaboot gi dëgg def leen dëgg dëgg murit yu mel yu sëriñ bi bëgg yal na yàlla yàlla na suñu borom barkeel loola ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala su bali la dangaa dem mu ne daa dem ci sëñ am sa nekkoon ab nawet kat jàggaluñu ñun murit yi li ñu soxla ëpp na bu marel anam nawet ni bëgg ngeen doggu ci na murit yëpp wér na murit yëpp yor na yëpp yor loolu bés bi àttan na ko nee na am ndox dawuñ ko dara li ñu bëgg ëpp na am ndox sëñ Tuubaa nee na woon maa gën a wow maa gën a wow mu nawet. nee na ne ku loola ku ànd ak mbooloo ku ne xam nga. na nga mbo nawetoo bay ba nawet ba jeex. benn taal bi ñëw jox la loo xam ne mënoo ko mënoo koo bay loolaa gën a wow. nangu leen.